démb nak seetaan naa Moustapha vraiment man kuma ma quoi man kuma ma sopp émission bi. Nabi Vision. mu nekk émission bam am solo dama ko seetaan démb tay ma xey suba seetaan ko te bi ma koy seetaan nag suba dama ko déglu bu baax a baax mais je pense que amna yu beuri yo xamanteni def ko rëcc man japp na ni ministre ma booba warna na jé jege Cissé bu baax a baax warna ko jege ci conseil ak lu bare bare lo xam ne ko ci agriculture lolou kenn du ko weeti lu bare bare bare lo xamna ko ci agriculture. kenn du ko weddi xam na ñuy jaay gerte xam na fi xam na lu jëm ci jiwu bi xam na lu jëm ci engrais xam na bu baax a baax lu bëri mais am na leneen lu bëri xam du ko rëcc gaa yi war nañ ko approché c'est vrai war nañ jël ci mu ay conseil war na leen sax jàppale ci yu bare bare bëri mais dafa am benn genre concurrence boo xamante ni dafa am ci digganteem ak ñeneen ñoo xamante ni ñooy liggéey ak nguur gi léegi tappale yi daan am bu njëkk nga xam te ni moo nekk ci boppam ba léegi bu mu jàpp loolu mun naa nekk ñi daan tappale même fekkente ni nguur gi ñi ngi liggéey ak ba léegi bi ren mais niñ doon tappalee mënatuñ ko def ndax bu lépp léré lépp tegu ci yoon tapalé nga daan def doto ko doto ko mën def amna nu gars daan tukkee aéroport ci yenn visa yi daan taf yenn tapalé visa yi loolu lu bëree bëri mënatuñ ko légui parce que gars yi nañ affaire yi noo xamante ni bu ñëk niñ daan teppee ay visa di taf tepp ay photo taf yu bëri légui mënatul am parce que légui mbir mi dafa tegu ci yoon donc mom peut-être amna nuñ ko wara mise à jour c'est trop dire mais pour ngeen comprendre am na yoo xamante ni rëcc na ko ci yu bëree bëri parce que lu jëm ci prix gerte gi dama fàttaliku daaw dërëm la ma Sall yokk ci gerte gi dërëm benn dërëm la Macky Sall yokk ci gerte gi benn dërëm. Naby Vision. ça c'est loolu nee na prix bi liñ ko yokkee mënoon nañ ko bàyyi prix daaw bi et loolu mënul nekk jamono dafa weesu jamono dafay avancé te lu bëre bëri dafay soppeeku prix bi ñu def nii ñun bu ñu sañoon bëre bëri dañ koy gën a yokk mu gën a mu gën a mu gën a yéeg man loolu laa jàpp mais Sénégalais aussi ñun yor nañ benn jikko mooy bu ñu nekkee ci benn domaine tey comme nga nekk ci domaine transport ñi woote assise ci transport gars yi indi ay xel nga am ñoo jël yow ñu la ci boolewul rek da nga naan ñee li ñu def dara baaxu ci yow léew li nga def rek toujours yow luñ la boolewul rek loolu baaxul yow luñ la boole bu indee sa xam-xam loolu moo baax loolu jikko sénégalais la même ci ay yenn professeur yenn borom xam-xam yu bëri bu ñeneen defee dara ñoom buñ ko liiree ñoom comme bokkuñ ci rek loola baaxul loolu jikko sénégalais la suñ jikko lu ñun dégg naa ko mu wax ci Moustapha Diakhaté mais damaa jàpp ni côté boobu aussi non côté boobu gars yi dafa naa dañoo teglul Moussa Cissé Lo nee na Moussa Diakhaté dafa wax xam na li muy wax lu muy wax da koy teg ci xam-xam mais jàpp naa ne Moussa kii ni ko sax président Cissé Lo euh, jamono yi Moussa Diakhaté di wax dëgg ci Ousmane Sonko di wax ci Pastef di saaga di wax ci waa Pastef yenn wax yu grave yi dafa naa ne peut-être yenn yi seetaanu ko wala wan wanuñ ko ko wala gis ko dafa nekk fekkoon mu nekk ci ay feebar yu bëree bëree bëri peut-être moom gis ko dañ ko war a mettre à jour wan ko dëgg-dëgg li Moussa wax ak li Moussa Diakhaté def ci réew mi loo xamante ni am na ñoo xamante ni bu tase woon ak ñoom Il def ko lu bon ci dëkk bi peut-être yu da koo seetaanu am na lu bëri lu ko rëcc daal. la lu parce que dem na Moussa Diakhaté nee na Moussa lu wax rek xam na il est intelligent lu wax wax rek waruñ cee tëj c'est parce que dégluwul li Moussa Diakhaté wax yëpp xoolul fi Moussa Diakhaté jaar ak waa Pastef gisu ko ma loolu. léegi information yi ci tribunal bi Moussa Diakhaté la mu da ba ci tribunal donc ñun ñi ngi xaar justice ba xam ndax dina ko condamné wul ko condamné Moussa Diakhaté warul manam 6 mois sax dafa tuuti ci mom 6 mois sax dafa tuuti ci ñoom te patriote yépp ñi ngi teg bët tribunal di xol lan mo fay xew. dégg na nak information yi ma jot que ni li waxon da ko réitéré dafa gëna a xas ñëpp ñi nga xamanteni dañoo voteel Pastef donc ñi ngi xol ba xam tribunal ban décision lay jël contre contre Moussa Diakhaté mais dal xam naa ma bubo mëna na ci Cissé Lo mën na gën a waxtaan ak moom mais bu mu jàpp rek ni bu am ci na ay falsification chiffres yoo xam te ni Sall da def te loolu président donc mais li xaar rek mooy mu xam ni daan bu ren jiw yi nañ ko nañ na fu mu war a des tamit gerte gi dégg naa ñu naan production bi production y quelques deuk yu nek bir Saalum yo de sen souf choses. ba ci dafa Gambie. quelques mais li ko daggee gi jëm Jurbal jëm Jurbel dem ba Casamance dem ba Saint-Louis di Ils fini bar 90 territoire bi gerte gi dafa Ils dafa jaar yoon. gerte gi dafa bax jaar yoon côté ci problème.

de Charo-Caranca. C'est un manque de respect notoire de la France. Euh, gis nga aduna, bu la dee rëcc fekk mi ngi say loxo te sàggante rek tax mu rëcc la wala jàpp ni yaa gën nit ñi wala gën a muus nit ñi ba tax ngay def lu la neex

caaray 44 France mi nga xam ni joxe woon na kàddu notament président France Macron ne dina ñëw pour sax pour une fois mu reconnaître massacre caaray 44 ci suñu tirailleurs yi mu ñëw ba à la comme ni mu koy faral di nous nawle nous reconnaître na bon voilà les faits ça ne veut rien dire. à la limite c'est un manque de respect notoire de la part de Macron président France bakana na njàkk xamul ni fula moy jaay dakar wala ma ñam jaxal ko gis nga eh, ku nekk danga am sa histoire mo war la jangal nak nga war sa it sikkondiku pour xam fi ngay tek sa tank bu nak la France dafa japp ni ñun eh, nam bët bët bi ñu doon xolé mom la xolé

wala ci benn président wala benn dëkk ci àdduna bi parce que nous sommes un pays souverain. Nabi Vision. voilà loolu moom il faut àdduna bi xamee ko noonu ñun képp ku ñuy jëflanteel dañuy jëflanteeg yow parce que suñuy nawle nga boo ko jàppee noonu baax na soo ko jàppewul noonu ñun lijjantiwuñu la notamment France ñun lijjantiwuñu leen gis nañ nag interview bi nga xam ni accordé nañu son excellence accordé na ko seen média yi laaj nañ lu ne notamment euh, présence force de défense su maanaam accord yi nga xam ne am na fi maanaam les bases militaires yi fi nekk ak yooyu yëpp wax nañ ci son excellence moom moom fulaam ak faydaam wala di ko jéem a orienté non loolu c'est de la peine perdue voilà de façon diplomatique lim ci tontu macha allah dañ koy doyloo en attendant nag ñuy xool nag nan lañuy jëflante ak ñoom parce que dafa am loo xam ne dafa yomb taxaw fële di def lu la neex walla boog def lu la neex ba pare yor suñu téye suñu monnaie téye suñu économie bëgg nag di ñu kayit loo non loolu c'est fini c'est fini il faut ngeen xam ni France il faut ngeen xam ni nos autorités qui nous gouvernent. nabi Vision. bokkul ñoo ñi nga xam ni seeni préfet lañ woon ci gàttal.